asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa Diamaguène maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di jox ku nekk yëguwaayam di ko yàlla jox te mu yelle ko di leen ñaanal jàmm bu baax ah, bu ngeen gisee suñu vidéo bi nag mooy ah, bis bi nga xam ne moom la ñuy def chaque année muy calendrier le 4 décembre la tollool bii di ñëw incha allah rabbi ñu koy ànd ak suñu rakk suñu xarit Ousmane Noreyni nga xam ne da koy woote rek waaye moom moo ko kii da koy woote rek te it mbooloo mu nekk rek suñu borom da ci gisal kenn muy jëmale nit ñi fenn kon loolu rek moo tax waaye jàmm gën gépp bokk bis bi ñoo ngi seewoo nag képp ku dëkk jàmm gën di jeune wala ngay mag wala ngay jigéen ñu ñëw àndandoo ndax ku nekk xam ne nawet moom bu xasee jàll bu jàllee rek dëkk bi dafay salte kon nag euh, nañ ko fexe yeesalaat ñun ñëpp dama part nag man maa ngi woo sama mbokki taalibe yi képp kuy Baay Faal te dëkk jàmm gën képp rek koo xam ne Baay Faal nga te dëkk jàmm gën maa ngi lay woo ndax kat set setal suñ koy wax Cheikh Ibra moo ko njëkk def ndar daana toog ndar ba mu yàgg mu génne Baay ñu génn mu gas ay leeñ leeñ leeñ mooy pax yu mag a mag yi ñu bale dëkk bi jël mbalit ma yëpp dugal ko ci leeñ suuraat ko mu maase la waat dëkk bi ba mu rafet kon nag Baye Fall yi maa ngi leen di woo ñu bokk ko waajal ñun ñëpp incha allah norin nag da ko woote rek waaye jëf ji moom ñun ñëpp ñoo koy àndandoo jëfa ko waaw jëf lu baax nag moom yàlla doo koy fay yonent salaa salaam daa ne ki gën ci yéen mooy sayyidul xawmi mooy kii liggéeyal nit ñi ñu nekk ci naa ci naa ci kër gi moom mu ne ci naaj bi nee na kooku moo gën ci yéen kon nag nanu fexee jaayante ñu génn defar suñu dëkk bala ko mu set maa ngi woo képp kuy Baye Fall nag laa woo képp koo xam ne Baye faal nga maa ngi lay woo le 4 incha allah jàmm gën ñu àndandoo defar dëkk bi bala ko ba mu set ku nekk delluwaat ci yitte noré ni jërëjëf merci beaucoup bon ñu ngi fii boutique gu Kenzo shop Kenzo fashion chez Bokande mais affiche bi ma gis ci bunt bi may dugg. mais lan ngañ ci mën a wax. waaw mais affiche bi di waajal la kar rek. Ah. bisu Noreyni bi. ok day jaam a gën waajal bi bi ki leen day bi. Mhm. waaw jaam a gën gi yëpp setal dafa taalal jaam a gën mais loolu xanaa war nga ci wootee jeunesse bi génn ñëpp génn ànd ak Kenzo shop Kenzo fashion chez Bokande ànd ak yow ñëw ci liggéey bi setal dëkk bi. oui waaw ñu ngi siy di waa jaam a gën gi yëpp. Mhm. waaw ñu ñëw jàpp massivement si événement bi quoi ndax dëgg fa yàlla lii ñoom ñu kii daanaka suñu bopp rek lañ ko defal quoi taaral dëkk bi loolu moom initiative bu rafet la de passage ñu ngi si gërëm Ousmane Diop noo rëy toujours la waaw Fallou Djifa ñoom Galas ak ñëpp ak ñoom participateur yu kenn waaw ñoom Abba di si mooy waa jàmm ñëpp